ci làmb nag dafa yi parce que gis nañ coow li xew ci diggante Gaston Production ak waa kër Aziz Ndiaye euh, wul yàgg nga ak Gaston Production waaye yàgg nga tamit ak kii di nga xamante ni moom mooy euh, Aziz Ndiaye nan nga gisee coow li nga xamante ni dugg na ci làmb tañ jàpp ne ci mbër yi la yelloon mais bi yoon promoteur yi ñooy rayante seen biir. asalaamaaleykum dëgg maa lay nuyu di nuyu waa Kër Massa di nuyu waa Defar di nuyu ñëpp. di nuyu nag sama papa père As Ndaw Ndukumaan euh, borom Ndukumaan groupe nekk nit ku baax jël ma def ma ambassadeur si original di ñaan Sénégal gépp tabaski bii nu jëm na ñëpp dem jënd jus original parce que jus original mooy jus bi nga xam ne moo ñëw si Sénégal wuli si fi ne yëpp parce que euh, boo xoolee original ñu ñu ko ñu ko liggéey Arabie Saoudite loolu rek xéwal la bokk nag si yi jóge Siin yi jóge ca Siin waaye yi jóge Corée yi jóge mais si bi nga xam ne jóge na ca Arabie Saoudite nekk si bu baax si boobu vraiment damay ñaan Sénégal gépp ñu koy consommé muy si muy si asang fi mu ngi fii dee dëgg nit ku baax as ndaw sama mu ngi fii dee dëgg nekk ko ku baax a baax a baax yàlla na ko yàlla jàppale. di wax ñëpp ne jus original laa dama bëgg ñëpp def ko seen jus. comme may ambassadeur bi. vraiment man aussi Sénégal gépp bëgg nañu ma. na nañu jël jus original. def ko seen si yeneen si yi ñu doon naan ñu bàyyi ko parce que feebar yi bari na te si yooyu day joxe feebar te original day joxe wër te moo original kon original na ko népp dem jëndi macha allah. Euh, coow li dugg ci làmb ji tey kan nga jàpp ne moo tooñ. balaa ma ñu coow li di santaat kenn koo xam ne euh, dëgg. dama koy sant di ko sant di ko santaat. muy sëñ Cissé bu sëñ Babacar si. Serigne Cissé nit ku baax a baax a baax la. Serigne Cissé dëgg li ma ci gën a neex mooy. woo ma ko. Mhm. dafa ma woo ne ma wulli foo nekk. Mhm. ma ne ko maa ngi bureau. Mhm. fekk boobu maa ngi ndukumaan. mu ne ma jaar kër gi. ma jaar kër gi. mu ne ma dama lay laaj. loo bëgg xaalis war a xar. li neexut. fi réew mi toll ñu naan réew mi dafa mitti ñu naan réew miti sëñ Cissé li mu amak li mu am li ko yàlla may mu ne dama koy bokk ak doomu aadama yi barke Seydina Mohamed. ne loo bëgg xar ne ko xar laa bëgg. mu gënal ma xar boo xam ne ëpp na trois cent mille francs ñoo an mu fay ma gis. xar ngi yow xar bi. kon sëñ Cissé li nga def yàlla na ko gën a mën. yal na ko gën a mën. koo ñaanal yal nangu. seet moom koo seetal di ko gis. parce que mën nga seet. sa loxo boo ko fa too bu amaay ko sensibiliser. lépp lu nekk ci yow mu wax la ko. amee gël bu la bay sax mu wax la ko. seet bi garab gi nag ku bëgg dóor. baane baane bu baax boobu naa ne biteelam boobu di jar dix mille francs allah. mooy garab kàttan boobu mais eh, wulli euh, làmb ji kan nga jàpp ne moo moo tooñ promoteur yi. dëgg. coow amul. Ah, li am kon waxante dëgg. Madun dëgg na ko nit ñi waxante. caatu yarax na ko nit ñi wax dëgg. caatu yaraax na ko nit ñi wax dëgg. man sama xarit la. ku baax la. sama nit la ñoo bokkoon saal mais dëgg bu bu jotee dama ko koy wax. bu ko kenn influencé dem dëgg naa voos jambaaw mu ne moom bu doon moo koy xelal da ko wax mu dem bëre. caatu yaraax la yow laay waxat directement. képp kuy sa nit. bëggal la sa carrière. da lay wax nga dem bëre. képp koo naan buy bëree. tabaski bi doo jox xar caatu yarax xoolal rek ñi wax ne buy bëri ñëpp tabaski bi duñ la xar. boo tuul sax teew la yaakaar. gis nit boo ko dul dimbali ci liggéeyam bu koy yàqal liggéeyam. caatu yara champion bu mag la. dafa war a bëre ak duut sànne loolu mooy dëgg ku ko wax ko waxul loolu mooy dëgg. parce que euh, Madoune booy dugg ci kalaaf. xam nga ne kalaaf bi am na poule A am na poule B am na final loolu moom ku ko wax ak ku ko waxul loolu mooy dëgg. mbër bu dugg ci kalaaf xam nga ne kalaaf bi ku jël P fii ak ku jël fee ñooy bëre. loolu lay nirool parce que dina ma na ay douze saa nekk sama caatu Yaraax sax man vraiment dafa ma bett parce que ku daan njaay tin jaan caatu yoof daan gamu géy vraiment moom sax moo waroon nag affronter Doudou Sané parce que Doudou Sané nit dong la nag. mais nag wóoy ma caatu Yaraax est-ce que xam nga ne caat bu caan jeexee caatu Yaraax ñi mu daan Doudou Sané mënu tin caatu yoof kese doon dina waat ku daan caatu yoof war ngaa mën a affronter caatu yaraax lam ji nañu waxante dëgg man de wax dëggu si yàlla su ma noppee wax dëgg yan dama yara rey ma dun mii bu bu bu dëgg dama koy wax ku deful dëgg ma wax la ko caatu yaraax moo nekkul ci dëgg te képp ku bëgg caatu yaraax waroo ko wax ne buy bëre parce combat bu nu yóbbu CNC régularisé au niveau du CNC mbër bi bu bëre wul dana koy aj te képp ko buy bëre buñ la ajee nga am 3 mois bëre woo 6 mois kenn du may dërëm te te caatu yaraa champion la te mën na daal dul saane man moom laa faral parce que moom sama xarit la bi ñu bëre njaay tin dinoo kaf dinoo reetaan maa ngi mbër bu yaru la mbër bu baax la mais dama ko ne. képp ku lay wax ne buy bëre caatu yara mu ngi lay yàqal. barke Seydina Mohamed su ma doon moom damay bëre ak du sànne parce que mën na ko daan. caatu yara sinon caatu yara ma ne ku daan njaay tin daan caatu yoof yaa mën du sànne du sànne ma du dara. gaa yi barke Serigne Moyo du tuus. Eh. biiram bu la fi nekk di nepp gaa bu nu makku doon sama rey ko caatu yaraax ko man foofu du ko jël daan ko mais làmb ñooy wax ay lin la fay tuut na non dëgg rek a neex yàlla caatu yaraax bi muy dugg ci kalaaf bi bi xam nga dina kaaf deux millions la bi muy dugg ci kalaaf bu du woon kalaaf mënta am kabaa deux millions oui makkaan dugg ko ci kalaaf ñëpp pour ñoom caatu yoof mooy jël poul bi njaay tin topp ci ñëpp ne njaay tin moo koy jël kon caatu yoof bu ci ah, caatu yaraax bu ci bokkee dem ba daan ñoo ñëpp li waroon mooy mu affronte du sare mais Sénégal ñoo bari ay wax dunu la wax dëgg képp ku la naan buy bëre caatu yàlla lay waxaat képp ku la naan buy bëre ak Doudou Sané bés bu la CNC ajee nga toog at bërewoo dañ la fate kenn du la may dërëm yow di nga njaboot demal nga bëri ji lam mooy sa métier même bu ko dul saane daanee mais sa mais mais yow ku daal njaay tin daan caatu yof mais loolu kenn mot laa fay àddina na bëri ji lamb ji dañ tudd waxte te waxante dëgg combat bu nu réglé au niveau du CNG boo bëriwul dañu lay aj te fii mais mais moom ma sama mbër du saa naa ko si man moom ak Doudou Sané caatu yaraax Doudou Sané final bi man en personne en tant que ambassadeur ju original dinaa wax Père As Ndaw mu tegaleen benn somme ku daan jël ko. mu daan yi moom seen coow yi nañ ko war a bàyyi man bëgguma yàqalante. gis nga nit doo yàqal sa moroomu nit. Makan Mbeng nit ku ma neex la. nit ku jub la nit ku baax la. fi ma ko nawee. problème ak jamaïcain. di di see woon grandeur. xam ne jàmm rakam la. te bu bu ko neexoon. Sarko du bëre jàmm mu bàyyi lépp déggoo ko ci ba tey mu wax ci gis nga Bassirou Diomaye Faye président ku ne war ci moom doo doo ko dégg mu wax foo muy waxee gis nga nit wax ju bari amul njëriñ nit da ngay def silence makkan de wax dëggu see la man jikkoom neex na ma waaw dëggoo ko ci détail dëggoo ko ci wax dëggoo ko ci coow Euh, Lirou Diane jikkoom war jikkoom neexuma. déet jaan jikkoom neexuma. mais xol jikkoom neexuma wax naa ko ñetti yoon. moo baat am na set. te gis naa ko muy di def di di jaay doomam doom jooju am na doom. ma nekk nekk nit boo demee boo am ay set. war tooy di jooy jooy caaxaan. liiru jaan am na sët. am na set lay wax liiru jaan am na doom ju ami ay doom moo ma ko wax tey. liiru 1980. doomam jii di TikTok ci TikTok bii. am na doom doom ju am joomi at. liiru jaan lee mu am ay setaat parce que euh, doom ji am na doom ju mag. te lee mu amaat doom. nit nag bu la yàlla defee ngay kilifa. jooy yi mu jooy day jooy day ñor jooy day ñor mais. <laughs> <laughs> doo silaan même même <laughs> doo doo doo silaan laal nga jooy laal nga jooy. mais day génne rongo. tappale. rongo yi tappale. nga gis yooyu see di woon lan dëgg ay jooy xam nga kuy jooy doo wax. jooy xam nga ma naan. <laughs> waaw mais lan dëgg sa tur nag fan la lan lan dëgg dibli lan dëgg la. luy problème bi. nit nit booy wax lu ñor. booy wax lu ñor doo fi ne di jooy. Lac de Guiers sunu waay la ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla génne fi mu nekk. vraiment sunu xarit la sunu nit la. mais lii du jaan vraiment. di lancer appel lii sëñ Cissé laa koy wax sëñ Cissé il faut ngeen yóbbante naa leen ci moom il faut mu wax waayam gi bëgg na ko lool waaye jooy bari na. sëñ Cissé na ko ñaanal mu bay jooy ah, xool bu oyofu xool bu dëgër la yor. xool bu bon a bon bu dëgër day soob dafa réew rek. mag mu réew la. jooy guddi jooy bëccëg loolu daal la du reewa de bu mu foto nit ñi moomu nit ñi di wax ne madun làmb ji nañ ñëpp nekk benn vraiment aussi di dégg naa keroog euh, diggante Abdoulahat Ndiaye ak Aziz vraiment ñoom ñëpp ay mag lañu ba pare Aziz Ndiaye man sama nit la sama xarit la ku ko bëgg laa mais man su ma soñoon vraiment moom assise yàlla def na ko kilifa gu mag a mag a mag. billaay walaay taala su ma sañoon détails yu bëree bëri même même du lii détails yu bëree baree bëri euh, ma dun assise dama koy ñaan même du ko téléphone suma ma sañoon yu bëri du ci dugg parce que nit ki boo demee ba nekk kilifa même boo def xale mais assisté kilifa gu mag a mag mag la ci réew mi. nit ku baax na ko dugg si nit ku baax a baax a baax mais su doon mooma yu bëree bëree bëri duma ko wax du ci dugg ay détails parce que man. man Aziz bi mu fiy ñëw ci kombaay yi Balla ñu daan Balla Gaye ñu koy saaga di ko xas di ko xas ci ay waajuram mais man dama naqari dama ko woo téléphone ne ko kilifa nga bul ñëwati ci yii parce que boo ñëwee ci ay làmb ñu daan mbër ñëpp di la saaga di la xas te ñi lay xas yaa leen gën ñi ñi lay xas lay yàlla may mayu leen ko vraiment yooyu da nga koy éviter même coow lii nii nii dégg naa ba dem tontu jaru ko woon vraiment. jaru ko woon waaw vraiment man su ma su ma mooma kilifa même lii coow lii nii nii Aziz mën na koo régler parce que Aziz wax na ko ku ko xam xam ko sama baay Gaston Mbengue wax na wax dëgg yàlla foofu sax la laa woon jëkk di jaale sama baay Gaston Mbengue est-ce que xam ne Madoune coowu caatu yaraax bii damay lancer assise mën na ko régler. vraiment kilifa la yàlla may na ko daraja bu woon caatu yaraax woo makan mbeng ñu toog waxtaan parce que aussi loo gis Madoune waxtaan am na. waaw waxtaan quoi ñu waxtaan vraiment parce que combat bii dafa war a am. man dama ci lancé appel assise ale wala maam makkan rakkam ma xaritama na woo caatu yaraax woo makkan mbeng ñu toog parce que bi mu fi amee problème ak makkan sama baay Gaston da koo woo këram bi mu ko wooyee mook makkat yëpp nu nekkaat benn bi comment aussi noonu laa bëgg Aziz moom laa ko délégué mu dox ci cànk tànk jàmm wax ak caatu yaraax mais daal li ma la xamal mooy caatu yaraax bu bëriwut ak du saane du CNC dina ko teg ay daan yu mitee mitee mitee te ko ñu bëri damay dëgg buy xam nga Sénégal madun du nu fay ay te du wax nit dëgg yow mënoo dem coupe d'Afrique madun nga qualifié final Maroc qualifié nga ne doo bëre doo football ak Maroc kuy dem Coupe d'Afrique xam nga ne boo qualifié final da ngay kuy dugg kalaaf bu am deux poules xam nga ne ki gën fii ak ki gën fee ñooy bare loolu mooy dëgg caatu yaraax bu bërewul billaahi wallaahi dootu gaaw a bere fii Sénégal te promoteur yi il faut que ñu solidaire promoteur yi yëpp waroon na ko boo bë boo bërul makka la bëreloo parce que loolu mooy solidaire loolu mooy yëfi gor loolu mooy yëfi nit mais yaxante bi buy bëreel makkan kam ma fi bëreel ma kam dina loolu moo ñaaw tey caatu yaraax bu ko ñëpp ne woon boo bëreelul makkan dootoo bëre mais day bëre day bëre par nit ñi doo ko influencé influencé yi doo nga ko ay fi dafa ndaw eh li ko fay ndawul bi muy dugg ci classe bi deux yi baax na mais euh, tournoi bi trois millions mais attention même bu ndawee na dem ba kër makkan ne makkan sama grand nga vraiment classe bi dama ci leb ami bor dama ci def nii dama ci def nii dama ci def ne su ma sañoon final bi muy bëgg du sànni nga yokkal ma ko kon mu yokkal ko. man de laa wax en tant que ambassadeur dina wax ak père Ax Ndaw bu taxawee ñu teg ci prix bu mag som xaalis. bala Gaye man. nun seen nañu ak Modou Lo euh, roi des arènes euh, euh, group groupe seen ak Modou contrat pour mu nekk ambassadeur euh, Cobra. bu boisson bi nga xam ne NXT da ñun roi la ñu xam. te ñun man roi laa xam. roi laa xam bu tafaatin daane nag ne nekk empereur ñu boole ko roi Tafatine bu daanee nekk empereur ñu boole ko roi bi mu daan roi. Balla Gaye mënu daan kenn. Balla bu dee Aziz laay waxal bu dee dafa yaakaar ne Balla Gaye daan ba mu mën a empereur sa empereur du du géej barke Mouhamed. te combat bii combat Tafatine Balla Gaye maa ngi ciy lancé appel di ci woo képp ku Serigne Modou Lo di ko jëkk ci sëñ Cissé mu Serigne Babacar Sy. Masila Joob euh, Mor Cissé ñëpp ngeen jàppaleel ma Tapha mu daan ko parce que ñii ñu ngi commencé bari wax wasalaat ah. wasalaam. Alaaji Madun sëñ Cissé ba ma demee këram mu ngi dem xar mais dafa dafa wax loo xam ne vraiment fii maa ko fii jëkk a wax. maa ko fii jëkk wax muy wax boo xam ne vraiment dama ko ci sant ne parce yor na xaalis nee na day dem dina Lac de Guiers jox ko baayam Madoune Sëñ moo gore. nit ku nekk ci tabaski bii fa Lac de xelam mun ci jëndal papaam xar ne man man may jël sama xaalis jëndal Lac de xar mu baax a baax a baax jox ko papaam. sëñ Cissé yaa gore sëriñ Cissé yaa baax yaa gore billaahi wallaahi yaa gore yàlla na la yàlla fay parce que ku nekk nettu te nettu jombul kenn nga ne xar tabaski parce que nag papam soxla na tabaski parce que tabaski bu jotoon Lac de Guiers moo koy jox xar nga ne ren tegil naa ko Lac de man maa koy def sëñ Cissé yaa gore sëñ Cissé gone sëñ Cissé yaa baax billaay moo baax.